ndaysaan mbokk yi ñu ngi toll ci combat bi ñu mën a tuddee grand combat ndax grand combat bi daa doxoon ci diggante Zambala ak Blindé waaye gis ngeen li ci jot a xew en tout cas daal bii mooy combat bi nga xamante ni gars yi ñu ngi koy xool xaar muy appliqué ndaysaan ak Cheikh Bary arbitre bi sifflé na Cheikh Bally moo la jàkkaar lool appliqué moo la wan ginnaaw ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Cheikh baari ak appliqué ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Cheikh Bally moom nga jàpp appliqué cokkas na boobu baaxul appliqué Cheikh baari Cheikh Bally gi dox ci koom waaye doxu ndànk la rek doxu yóotu ña ngay jokkaasante Cheikh Bary appliqué le 10 août fii ci arène nationale journée jàmbaar production ndaysaan combat bi ñëpp doon xaar mooy journée des bi mbokk yi jeudi 10 août lañ ko jàpp fii ci arène nationale ku yéex doo am place ndaysaan ku yéex ñàkk loolu la gars yi wax waaye fii ku yéex doo am place teel leen a takk ba mel ni takk naa naa teel a ñëw ci làmb ji ñoo ngi naar Cheikh Bari appliqué ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Cheikh Bari appliqué appliqué cokkaasaat na Cheikh Bari appliqué appliqué Cheikh Bari lu cokkaasaat na Cheikh Bari appliqué cokkaasaat na appliqué Cheikh Bari nga koy déglu appliqué Cheikh Bari combat bi war naa mën a gaaw ndax ñaari xale lañ ñoom ñaar ku ci nekk kala waroon yab yab na la. Cheikh Bary appliqué Cheikh Bary taxawaay bi baax na appliqué maytul ndaysaan arbitre bi àtte na wax na leen bëre woo leen bëre leen doxaan na ci kawam Cheikh baari ak appliqué ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar appliqué cokkaas na rëpp appliqué li nga bëgg a togg ñorut Toto togg bu ñorut boko yakke rek musiba am ñoo ngi noonu ñoom ñaar Cheikh bari appliqué cokkaasaat sadna, Cheikh bari appliqué appliqué cokkaasaat sadna ñom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tay cokkaas kurban bi wara mëna jéxal lamb ji amagut ci ñom ñaar du appliqué du Cheikh bari ñu ngay xeex xeex nañ ma ngay fay Cheikh Bary appliqué Cheikh Bary appliqué kurpañ waaye kurpañ yi fi mu war dal ba tey jël na ko jël na ko jël daan na laa ilaha illallah waaye appliqué daan na waay appliqué daan na waay ma ngay raam ma ngay raam ma ngay raam daan na ko moom appliqué appliqué daan na ko waa appliqué lu muy def nii ay waay Sadio Ndiaye jooyatuma Sadio Sadio gët gët avec Sadio jusqu'à la mort ndeysaan sama xel dem na ci bare bare bare bare ndeysaan waaw mais waaw mais appliqué appliqué félicitations. merci alhamdulilah rabbil alamin santaat yàlla bu baax julli si yonent bi santaat sama ñaari waajur santaat waa kër Seexna Seex Saat bu yëpp ak waa Maam Rawaan Ngom lamb ji na alxuraan maa ngi sant sama ménager Matar Ndiaye bu baax mais lamb ji bañ ko jàppee gars yi affaire yi dana am du am ak affaire yi moo tax affaire mu kale lu bëri ñun dernier moment sama supporter yi xaaj bi ñëwuñu damaa am kersa sax mais lii ñun lii yëpp la ñuy duy dañoo foog ni laa ma ju am ba àjjuma lañ journée la ñu woon day am. réew mi demee noonu yàlla na jàmm am ci mi ba lépp mën a doxaat mais combat bi ñëwul ñu ci combat bi benn benn cong la mu jeex. waaw non man ñii signature bi loolu laa oon woon ñii duñ samay adversaire lamb ji si lu mu ko wékkoon si gàllaaj si gàllaaj la ko wékkoon fu ne dugg na ko si àll bi. chaque jour fu mu dugg ñu wax ma fu mu dugg wax ma lépp mais entraînement ba wóor entraîné ba wow kongu la ñuy def ñaan lu suñ yaram ba kenn duñu mën a jàpp lu si des yaa koy mottali si biir géew bi menam cong mu non ñii du du maag ñoom du maag ñoom dama ko doon juumloo rek woo si xeex bi mais xeex loo wuñ ma sax bi mooy sept combat benn defet soxo bu ndaw moo ma daan ren def naa trois combat trois victoire billaay wallaay merci waay di la leen jaajëfal yéen ñëpp 预备